salaamaaleykum nuyu naa leen man la seen frère Ousmane Sarr euh, tey nag dama ñëw si beneen vidéo wax si par rapport rek tëj bi nga xam ne tëj nañu ko Abdou Karim Gueye ak Cheikh Omar Diagne xëy na dinaa si wax loo xam ne ñu bëri xamuñu ko si li nga xam moom moo lalu si ginnaaw liberté provisoire bi. parce que bu ngeen xoolee avocats yi depuis lundi le 12 décembre ci la ñu dugaloon demande d'LP liberté provisoire mais ñu gis ne boobu ba léegi amul benn réponse Y'a bi nak xeyna dina jaaxal ñenn ñi parce que dañu avons di gis bu ont demandé demande de liberté provisoire sur bi si si nous ñu accepté nañ ko wala dañ ko mais ma wax leen si lu nous ne ñu demande de liberté provisoire bu Abdou Karim Gueye ak Cheikh Omar Diagne si loxo parquet manam nekkatul si loxo greffier yi mais mi ngi si loxo Macky en personne Macky Sall moom moo ko bloqué parce que waxoon naa leen ne leen depuis ñu jàppale ne leen Macky Sall moom moo waxoon procureur ne na fi leen woolu digg pour déglu leen pour tëj leen ci kaso bi ngir mën a camoufler li nga xam ne moom mooy la mort de Imam Alioune Badara Ndao te ñëpp xam ne état moom mooy le seul unique responsable sur la mort de Imam Alioune Badara ndaw ñu ñaan yàlla yërëm ko léegi nag. kajoot bi nga xamante ni nii tijji woon nañ ko te Marème fay Sall waxoon na daf koy jël en charge na day jël en charge affaire yi pour yóbbu imam Alioune Badara Ndao Abdou Karim Gueye ak Cheikh Omar Diagne bokk si ñi nga xam ne dañu ne ñoom li daal seen xel mooy sénégalais yi cotiser seen bopp ngir ñu dem yóbbu imam dem faji ji ko loolu moo dal seen xel. léegi nag bi ñu recité loolu Macky sàll daf si meroon parce que xam ngeen ne Macky sàll fii Sénégal presque mën nañ ne jabar ji moom moo yor genn wàllu gouvernement bi. léegi bi mu maree si loolu la ne Abdou Karim Gueye ak Cheikh Omar bëggatuma leen a dégg après moo tax bi imaam génnee àdduna ba ba ñu defal kañoot imaam sax jutta jël kañoot bi mais bi mu génnee àdduna après nag si la ñu woolu Abdou Karim Gueye si ngoon si ñu woolu Cheikh Omar Diagne parce que dañ doon bañ di leen woolu ñoom ñaan ñëpp mu tegaloo affaire bi xaw a luus moo tax ñu leen di woo benn par benn mais ma wax leen ne leen justice su Sénégal justice bi ngeen doon gis Sisis bi ngeen xamone kané ne képp koo xam ne nga yott mom mo wara jubanti sisis bi nga xamné mom mo wara tax ba jamm am ci réew mi parce que dëkk bo mul sisis mënul am jamm sisis bobu nonu tay ji may wax ak yeen bëy la bu sango daru bukki wala bukki bu sango daru bëy moy kané Macky Sall mom mo nek ci ginnaaw camouflé ko di len deflo di len dindilo yeur suñu sisis japp ko en otage di def lu ko neex di def defloo procureur di def defloo doyen des six loolu moo tax Macky sàll mer googu mu leen mere woon si affaire Marème Faye Sall si cagnotte bi loolu moo tax mu bloqué li nga xamante ni moom mooy demande liberté provisoire ba nga xam ne avocat yi dugaloon nañ ko ñoom maître Moussa Sarr si turu Abdou Karim Gueye ak Cheikh Omar Diagne parce que nag Macky Sall il faut que ñu wax ak moom te dañ ko bàyyi si lim nekkee parce que bi ñu la naree tëj 2009 da nga doon jooy daw dem di làqatu si ginnaaw kilifa yi ñu yërëm la sëñ Baara woo Ablaye di ñaan ko ngir mu bañ laa tëj ci kaso bi tey yow yaa jël kaso boobu def ko ngànnaay ku ànd ak yow lu mu def baax na ku àndut ak yow lu mu def lu mu ndaw ndaw nga tëj ko ci kaso bi te xam nga ne li nga nekkee du dëgg du yoon te tegoo ko fenn kenn waxul dëgg nag parce que li nga nekkee tegoo ko ci benn dëgg tegoo ko ci benn yoon lu dul jaay doole ak yëfumaa tey te loolu nag dafa war a dakk Sénégal Macky sàll dañ ko war a wax atata jaay doole bi mu nekkee Sénégal dafa ëpp te dafa doy dafa war a bàyyi ku ko neex mu tëj ku ko neex mu tëj loolu la tëgul fenn loolu la tëgul fenn bu leen kenn gëmloo ko ne ay justice justice amu fi justice bi fi am mooy justice bi nga xamante nii dina jàpp ay nit ñu yor ay collet yàmba dina jàpp ay nit ñuy xuloo justice boobu moo fi am mais ñi nga xamante ni ay activiste lañ ay homme politique lañ képp koo xamante ni jàpp nañ la Macky Sall moom moo nekk si ginnaaw loolu parce que moom mooy tànn ñi muy tëj ak ñi dul tëj ba pare bu ñu dugalee demande liberté provisoire mu bloqué ko si ma tey il faut que ñu wax ak moom li mu nekkee dañ ko si bàyyi Sénégal jaay doole bi dafa ëpp. jaay doole bi dafa ëpp mënuñu jàpp ay nit di leen tëj si kaso bi seen ay avocat dugal demande liberté provisoire def si lépp li ñu ci war a def ba pare nga bloqué ko loolu moo tegul si dëgg tegul si yoon. te Macky Sall moom moo yor demande liberté provisoire boobu moom moo ko bloqué te bu ko neexee la koy débloqué. léegi nag ñun sénégalais yi rek ñoo war a jël suñuy responsable taxaw jàkkaarloog moom ngir mu bàyyi li muy def def ay série de manifestation yoo xam ne amatul demande li ba demande euh, euh, euh, dugal demande pour pour pour ñaan pour préfet may ñu ko wala ñaa ñàkk ñu ko may. parce que lii nag bu fekkee ñoom ñu topp yoon bi ñu boolee ñun amut amatul benn sens ñuy topp yoon boobu parce que ñiy jalgati lañ fi nekkee ak def yu fu maa te lii il est temps mu dakk parce que Macky Sall ni nga nekkee si dëkk bi jaaduwul tegoo ko si dëgg tegoo ko si yoon lu dul maa tey ak jaay doole wàññil sa jaay doole bi ngay def sénégalais yi buñ la doon jaay doole tey bu la Abdoulaye Wade tëjoon heure bi du fekk nga nekk président wàññil jaay doole bi te teg bal bi songale ko nit ñi joué moo gën li ngay def affaire dictature bi amul benn sens di laaxatu si ginnaaw sis sis laaxatu si la police la gendarmerie amul benn sens il faut nga arrêté li ngay def xam ne dëkk nga yor dëkk nga yor dafa am lu ko tënk mu ay sart dafa am lu ñu boole muy constitution bi dafa am lu ñu boole muy code il faut que nga respecté ko il faut que nga respecté constitution bi il faut que nga jox justice bi li nga xam moom la moom il faut que nga delloo pouvoir judiciaire bi si loxo justice bi moom moo dëkk bi limeeral ñi nga jàpp tëj leen ci kaso bi ah